yéen ñi nga xam ne nag bëgg ngeen di jot vidéo yi di ba jot audio yi am na foo xam ne boo fa cliquer incha allah danga nga mën a abonné nga xam ne lu ñëw ci rek nga jot ci. alhamdulilah wa kafa wasalaatu wasalaam ala nabiyil Mustafa mbokk yi bàyyi xel Ali Imran TV asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal di amaan mbégte ci dellu siwaat ak yéen ci seen jotaayu actualité yi ñuy amal ay bis gu jot. ci seen seen YouTube bu Ali Imran di nuyu bu baax a baax internet yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ci biir réew mi ñi ñuy topp bitim réew di bég lool ci ni ngeen di ànde ak ñun amati lool nag mbég lool ci dellu siwaat ci ak yéen fas yéene waxtaane ak yéen ay tomb yoo xamante ne xew-xewi jamono lay doon war cee ànd ak uh, oustaz Alioune Sall teew na uh, dañ koy bàyyi mu nuyoonte ak ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan oustaz bismillah bismillahi rahmaani rahim rabbi srah li sadri wa yassir amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli Haji Mbàkke maa ngi lay fay nuyoo jërëjëf la ci tegal ab nuyoo di nuyoo ñu ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew ak fu ñu mën di nekk di leen jaajëfal ci topp gi di ñaan borom bi jotaay yi ñuy jotaay ak ñoom mu amal nu njëriñ amal leen njëriñ. amiin ndax temps daa bokk ci cher. dëgg la bisimilah. macha jërëjëf oustaz di la masawu coono yow itam ci yëngatu yi ak euh, bëgg rek sénégalais yi li nga xam ne moom lañ soxla ci xam seen diine xam ko ci tolluwaayu jamono nga ciy ànd ak ñoom ñu ngi la ciy encouragé waaye di la ci masawu bu baax a baax. jërëjëf Mbacke wante maa ngi la ci masawu. jërëjëf nangeen ngeen def ak coono yi. waaw alhamdulilah noo ngi sonn <laughs> te bëgg di continuer sonn rek. ndeysaan ndax nopp dañ ko ñemewut mhm. bëri ci moroom dëgg la ndax xul innal mawta la si tafiruna minhu daanaka ñëpp la daj dëgg la kon nag moom ñu ngi sonn rek waaye ba pare bëgg di sonn nag mm, bëgg di sonn bëgg di sonn di kër këri rek di kër këri rek naka réew mi réew mi daa mel daa day réew mu xam naa réew yëpp bari yi coono ak naqaree noppaloo de waaye Sénégal xanaa ci la raw waaw moom de li ma lay wax moom saa su ne mooy réew mi daa spécial mm-hmm. njiit li spécial mm-hmm. nun xeet yu ñu spécial mm-hmm. ñun ñëpp maanaam daal ni àdduna mel ak nin mel ñun mhm. xaw naa wute ba pare ñu ne ci biir àdduna ba pare ñu ne ci biir àdduna bëgg a mel ni waa àdduna mel jeex na <laughs> affaire bi dana xaw a compliqué mooy waaw mooy kes sa xamet daam Njaay bi yàlla ko yàlla yokk wér mu ne li ko jaaxal mooy ñun li ñu dund ba léegi mhm. li ñu dund ba léegi mm-hmm. nee looloo ko jaaxal dëgg la muy lu am solo oustaz jërëjëf ginnaaw bi ñu leen dokkeelee bu baax a baax euh, di nuyu waa daara yi yëpp Ali Imran bu Daaru Cubb Ali mm-hmm. Imran bu Mbooro Ali Imran bu cees euh, mm-hmm. Ali Imran bu Seew Xaay ak mboolem selilu euh, Ali Imran yi ak ñi ko jiitee président association Ali Imran ak bureau bi ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di wàccee seen wàccuwaay doore actualité bi oustaz ci corona bi corona rek xanaa daa mel ne fi mu ne ab la day jamono ji day yéeg ko wàcc rek waaw alhamdulilah barki démb de wàccoon na lool wala démb tey mu yéegaat defe naa fukk lañ waxoon démb tey dem na ci ñaar fukk ak juróom-benn kon yokk na fi xaat fukk ak juróom-benn waaw kon mi ngi yéeg mi ngi wàcc eh, damaa xamul nag fañ ko jàppoon ba mu wàcc lu tax jàppuñ ko fa ba mu yéegaat bu fekkoon luñ man la mooy comme wàcc na ba ci diis nañ fexe mu jëm neuf jëm six waaye bàyyi ko mu yéegaat ba ak soit vingt six loolu de moom xaw na cee jaax mm-hmm. xaw nañ cee jaaxle di ñaan yàlla yàlla bu mu yëgaat. amiin nay ci jëm suuf. amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf oustaz euh, ma dooree actualité bi ci euh, histoire générale. Mm-hmm. bi nga xamante ne moom lañ fi doon bind. Euh, defoon ci ay commission génne woon livre bi nagani si daaw mhm. mu bari woon coow lool mhm. boo dee topp média yi da ngay gis ne ca Touba daayira euh, daayira Rawdu Rayaahiin mhm. euh, daje nañ bind benn livre boo xam ne ñu ngi ko tuddee livre blanc maanaam leeral ci histoire générale boobu waaye nag aspect bi nga xam ne moo concerné yoonu Murit ak si Ahmad Bamba ñu ci doon indi ay leeral ak di corriger yenn ci njuumte yee ci am mooy jàngate loolu xanaa bëgg ca lool te jaajëfal ci suñu jawrin jooju ñu demoon barke yee maa yow sëñ Abdou Samad mi xam ne moom la ñu joxoon déclaration bi mu wax ko ci façon boo xam ne bii macha allah sëñ Mbàkke bu fekkee réew mi daa judd bu yàgg ñu doxal ba 1960 ñu am indépendance waaw di doxal indépendance ba ñëw ci 2019 jàpp 18 19 jàpp 20 ñu ne nañ bindaat suñu démb loolu koo ko yaakaar ne liggéey bu ndaw la ba tax nga wut commission boo xam ne fee suñu néeg bu ngeen génnee ñu corrigé la kon loolu commission bu mag la war a am commission boo xam ne bii waajaay wi rek waajaay wi war naa matum at mbaa ñaari at ndax sunu démb liñ ci xam ci oral lépp du suñ démb dëgg la am déet dëgg la sunu démb liñ ci tubaab bi jàngal du suñ démb dëgg la dëgg la tey am am dit mhm. donc sunu démb koo xam ne da ciy bind dalay lay jaral mhm. kër yooyu ñu tuddee kër yu mag di këri diine ci démb mii mhm. te xewle lu jiitu indépendance xewle lu jiitu indépendance dëgg la nga ñëw tubaab jàngal la ca joxoñ la ca dara boo ko bindee du wér dëgg la moo tax ñu leen di jaajëfal di leen gàcce gaala maal ci courage courage bi ñu am ak taxawaay bi ñu am ba bind téere bii corrigé na lii ak lii ak lii wérut lu wér la lii la mais su commission bi yaatu wan loola moo cay def dëgg la commission bi li ñu ci jot def ci ay volume volume yooyu kañ lañ koy dabaat ba corrigé ko donc dama bëgg wax rek ne léggéey bu mel noonu lii waa commission bi wax lii mbooloo mi def livre bi wax nii ñu ko corrigé bu yaatu woon ba ñu ñu duggan ci biir bu ci lii duggee mën nañoo jàll ci beneen. Mhm. ñu def ko nag kër yëpp. dëgg la donc sunu démb. jekk ba tey ñu bëgg a bindu suñu démb. Mhm. ma waxaat ko commission bi daa war a doon loo xam day feesub néeg. Mhm. bu néeg. dem ci nit ñi waajal ko ba ba mu yàq takk. ñoo ko tàmbali bind. macha allah lu am solo la. dëgg la te it sunu démb bu fekkee dañ koy bind bind ko ci français képp nag. tubaabal ko. Ah, waaw. <laughs> dana xaw doy waar de. dafa mel ne ñun suñu démb nag naqari naa bindee oustaz ndax itam euh, net li yooyu ñu tàmm dégg. Mm-hmm. ak itam euh, ni nga xamante ne noonu lañ mel ci wàllu histoire ak mm-hmm. ñun réew mi ni ñu xaw a fonke maam nga xam ne mm-hmm. réewum maam la daal. maam yëpp ay jàmbaar lañ kenn ku nekk la nekk histoire euh, na nga ko tàmm dégge noonu ngay bëgg ñu bind ko. defe naa bind fi histoire jafe na de. jafe na waaye suñ ko yaataloon mu yomb. buñ ko yaataloon ba ñi ko xam ñu boole leen ci. waaw kon mu yomb. xam ñu ñu tuddee Euh, communication traditionnelle. waaw wala communicateur traditionnel waaw. ñooñu war nañoo bokk ci commission yi. Mm-hmm. ah mm-hmm. bu ñu bokkee ci commission yi waa Daara bokk ci. Mm-hmm. fu ñu nekk fu ñu ñëwee ci euh, histoire orale. bu jaree jubbanti commission boobu jukki ci Daara ji ñoo koy jubbanti. bu ñu juboo bu juboo nag ñu saxal loola ñu liggéey xëy tey. bu subaa ñu xëy kër ju la dëgg la. loolu rek la woon dëgg la waaye bu ñu tànnee Mor Khoudia ak Pathé ak Bàcc ak rek indi mm-hmm. am ñu des ginnaaw tooran caa bokk te xam ñu ca xam yooyu day am day am day am day am jafe-jafe. bu ko defee ñooñu war na indi seen loolu duñ ko indi. Mhm. ña leen war a corriger duñ leen corriger. Mhm. fii rek lay mujj. dëgg la kon ñu ngi leen jaajëfal baax a baax. macha allah am na solo lool daa mel ne li ñu coow ci wàllu bind bari na lool. Mhm. te ñun liñ bind itam bariwut ci suñu histoire. te daa mel ne bind mooy li nga xam ne moo fiy des. waaye boo seetloo ñu jàngi woon ba ñëw buñ bindee seen tees wala dara buñ ko bindee ci ak nit. wala ñu bind ko ci histoire di réew mi nga gis coow yu bari yi nga xam ne moom lay indi. Hmm. ndax ñun dañoo xamul importance bind dëgg-dëgg ak bind ni mu fiy defee. ah kay xam nañu ko. Hmm. ñiy bind nu xamut. Hmm. <laughs> ñiy bind ci ñun ñooñu xamut. waaw est-ce xam nañ ko. mais ñiy bind ci ñun ñoo parce que ñiy bind ci ñun bu nu xamoon. bu nu bindee mu mu feeñ. dëgg la. ndax aqiida nit ak pas-pasam sama gëm-gëmam. bu bindee rek mu toq ci xal mu toq ci kaydoo. dëgg la kon sunu xamoon bu bindee ci ñun mu wér. waaye boo réeree nit ki boo bindee ci moom du wér. dëgg la bu fekkee ki lay ki lay waxal ci ki ngay bind. yow sax yàkkoor nga ne jege. dëgg la mu toll fële di la waxal ci kii ngay bind ci loolu. Mm. mën na la faa bindal loo xamut. dëgg la lu rek la. Mm-hmm. ñu ñuy bindal. dañ noo xamul. Mm-hmm. macha allah am na solo oustaz jërëjëf xam naa ma dellu si waat ci actualité bi. Mm-hmm. ñëw ci waajtaayu màggal gi. Mm-hmm. ndax màggal dañ koy waajal yaa ngi xool ne ci ay wis gi gis nga ki nga xam ne mooy président de la république. Euh, mu dem fële ki nga xam ne mooy Touba. Euh, ni nga xamante ne aada la ci bu màggal gi jub see ñu di ko def. nooy jàngate euh, doxantu boobu. waaw am na solo. ginnaaw bu cérémonie jotaan dañuy yónnee. war nañoo dem balaa cérémonie. ginnaaw bu cérémonie jotee. da ngay yónnee. Mhm. kon balaa cérémonie war ngaa ñëw. dëgg la Senghor nag dégg naa daana ñëw cérémonie moom. Mhm. daan ñëw daan ñëw cérémonie. waaw mhm. kon jéego yooyu am na solo. moo doon jéegoy natt. natt liggéey ba ñu santaane ca dëkk ba. bu yeexee ñu ñu soññe ko. bu jagee ñu jaajëfal. bu jar yaatal ñu yaatal ko. macha allah kon maanaam ñëw fa mel ne kuy def bilan euh, loolu baax na parce que day leeral yam fa defoonam déet. wala wala loolu xeetu politique la aussi. Euh, tane na. ah tane na. ndax maa yow léeg-léeg dañu dugg ci. Mhm. sulu na Qarnayni. Mhm. dégg naa la ci al ihsaan mhm. langa nga ci wax ba mu agsi ci dëkk ba. donc natt yooyu tane na. waaye wartu doon lépp. te it fexe ba loo diggee ren ci deux mille vingt. boo dellusee deux mille vingt et duñ ca delluwaat. loo ko mooy tàngal ceeb lay doon. dëgg la te tàngal ceeb moom. gaa yi ki nga xam ne la seen xalaat jeex ñoo koy def. <laughs> macha allah <laughs> xam naa léeg-léeg day eh, man ñaari ñaari pouvoir yooyu bu ñu bokkee toog. dama naan li ñu war a waxtaan war naa am war naa am njariñ lool mhm. war naa doon loo xam ne itam sénégalais yëpp war nañ cee gis seen bopp mhm. ba nga xam ne tey bu njiitu réew mi jógoon ne day dem wala day dem Tiwaawoon xam naa sax njiitu réew mën naa bañ a tiit mhm. waaye mën na ne danaa fa fekk ay doléance yu bari danaa fa fekk ñu yor kàddu askan wi waxal ñu bari waaye day mel ne yooyu bu ñu koy xool oustaz itam ndax ñu ngi koy gis bu baax a baax euh, buñ ko dee gis nag des na <laughs> ñëwul na war a ñëwee waaw di santantee ko gërëmantee defi bilan rek ki ñëw te jiite réew mi mm. nga ñëw fekk koo xam ne li mu jiite. buñ ko jëlee ci réew mi li ngay dese. dangay dese. dëgg la kon ñaar ñooñu bu ñu toogee. li ñuy togg daa war a mat sëkk. ñor xom neex lool. dëgg la sëñ Mbàkke maa yow du fàtte. sëñ Cheikh mu suñ Abdul Xaadir. seen cérémonie ba. dëgg la dëgg la. dama xamul nag. ñu koy enregistré ñoo ko dul waaye la cérémonie mm-hmm. boobee moom. Mm-hmm. maa duñ ko fàtte ak ñu baree bari. dëgg la dëgg la ndax keroog dafa joxoñ ay tomb teg ko ca. Mm-hmm. te waxu dëgg la loolu moo am solo. waaw mën naa nekk. <laughs> ndax wax na ca baykat yi loolu keroog. ku ko déglu dégg ca dara. dëgg la wax ko ca chauffeur sa. wax ko ca liggéeykat ya lu ci nekk mu wax ko ca teg. sunu magum daar mii nekk ndaam tam. waaw nekk ngaabu. ngaabu waaw sëñ Modou Lo ngaabu sëñ Modou Lo ngaabu. Mm. <laughs> yàlla na ko yàlla yokk wér. amiin laa rabbal aalamiin. gis nga yooyu dañ koo soxla. waaw ñooñu dañoo war a yor kàddu dañoo war di wax. waaw lu am solo la mm, dañoo war di wax maslaa bi daa xaw a kii daan waaw donc. Mm. ragalante ginnaaw gi métti na lool. <laughs> donc bu kii ñëwee ci. <laughs> ci jotaay bi. Mm-hmm. war na fa dégg doléance yi ñor xom. Mm-hmm. jële fa. mu jële fa dolu yaasin ñor xomm mhm. bu ñu togg ko nag suñ mbàkkee mhm. togg ga yaatu mhm. ñor xomm te neex ñëpp bokk macha am na solo oustaz xam nga léeg-léeg liggéeyub Serigne Touba bi damay faral di wax ne euh, dañ koy war a yaatal ndax dafa yaatu waaye njaboot gi itam dañoo yaatu waaye bu fekkee léeg-léeg discours bi day yem ci dëkk bi maanaam président bu ñëwee tey ngir mu satisfaire euh, maanaam murid yi day wax lu mu def ci Touba. ñu doy loo loolu euh, ba di ko fàttali sax yoo yoo xam ne def na ko ñu ne ko da nga defoon te fàtte ko di sant ko gërëm damay jàpp ne baax na waaye xat na maanaam tey ña nekk ca marché Sandaga di jaay war nañoo gis seen bopp ci discours bi doléance yi ñu am te mënuñu woon a toog ak président bu toogee ak seenub sëriñ mu waxal leen ko baykat yi nga xam ne mbay maa ngi war a ñor ñu wax ci njëg gi ni ñu leen ko war a jaayale inondation yeeg ma bëgg wax mooy askan wi di dund ñuy gis bopp ci discours diini ji loolu am na solo lool solo yow tam. waaw <laughs> ndax comme maa noo koy bokki dund. waaw euh, commentaire boobu am na ci solo. Mhm. bu baax a baax a baax. Mhm. ndax euh, nettali woon naa la waaja ba Senghor ñëwee ca dëkk ba. Mhm. ñu jox ko kàddu mu nuyoo ba noppi daal ne Senghor kañ la indépendance totale di jeex. ndeysaan waaw ñu daal ne ko ah luy loolu mu ne waa damaa am ab laaj. ñu ne ko indépendance totale ci lañ dugg dootul jeex. mu ne kon de wax ngeen xay dëgg la ñu loolu xew mu ne bi ñu amagul indépendance loxo yi nu yoroon daf noo gën a loxo nu yor léegi mm-hmm. Mm-hmm. loolu li muy teg kon mooy moom lëm gëm loolu la waxoon mm-hmm. du dëgg dëgg la euh, ma soog nga fee fekkee gone yu ne woon dañuy dem pale ci président de la dëgg la yàlla may nu bokkoon ca ña ko doon préparé man la ma waxoon keroog ñaar nanu bàyyi fu ñu dajee bu ñu laata jeexal duur pooj door a dem rikkuwaay. waaw buñ fa tax buñ fa dul tax gone yi dóor pooj. Mhm. lu lay benn jeexal rek woy tuuti fecc tuuti. lu lay benn bu ñaaral bu bu kenn bindal xale yi. Mhm. discours. Mhm. waaw nañ leen bàyyi ñu wax li seen bopp. jeex na. ca gone ko jóge woon daan ne <laughs> Aminata Touré. yal na ko yàlla yokk wér. amiin yaa rabbal aalamiin. su ma màggee soxna su mel ne yow laay takk. ndeysaan mu jeex. waaw xam nga loolu loolu. dafay naturel. waaye bindal gone gi discours mu wax ko. du noonu gone gee wax waaye waxul. kon sa commentaire yooyu wax dëgg yàlla am na solo. Mhm. bu bu ñuy ñëwee fekk si ñii. Mhm. bu ñu waxee ñëpp war nañ ci gis seen bopp. dëgg la. jërëjëf macha allah am na solo oustaz jërëjëf xam naa tey actualité bi lépp day dellu rek ci wàccaayu màggal gi mhm. màggal gi ndax mhm. ni mu tëddee moo tax ay bis moo ci des mhm. am na euh, euh, yenn jigéen ju ñuy wax soxna Aïda Diallo yaa ngi dégg xëy na coowam ci pénc mi ci actualité bi la bokk euh, nekkoon soxna ci Cheikh Béthio Thioune waaye lu mat ata ngi nii wala lu ko jiitu bi fi borom këram bàyyi ko ba léegi mu nekk rek ci coow coowul jàppal bàyyil nooy jàngate actualité am ak taxawaayam ak ni nga xamante ne loolu la ñuy wax ci def laaj nga laaj bu am solo actualité bu am solo sunu jege woon ñu jàppe ko sunu jigéen dañ koy déey ndéey li mooy liy maye ngërëmu sëriñ bi tey tege ci ngërëmu kam doon liggéeyal li xidmatil muxtaar yi mooy ni nu nosee yoon wi nga jaar ci noonu suñ bàkke fi lii ñaata baaraam la juróom juróom kii li muy sori sori waaw ci la bokk de jeex na li muy sori sori nii mm-hmm. ci la bokk mm-hmm. gis nga boo téyee gis nga ni muy ñëwee waaw mooy boole yee téye <laughs> am na njariñ <laughs> donc yoon wi mm-hmm. nun la ko boroom ràbbe dëgg la ki war a jiitu na teg toog ci bopp bi mu nekk ñu tudde ko alxalifa al du dëgg léegi nag ñi jokk si ci moom cheikh yi euh, njabootu cheikh yi ñépp ñoom tam ku ci nekk da ngay nangu da ngay nangu ku la mag yilif la li fekk nanguwoo ku yilif la da ngay beru te boo beroo mu ngi mel ni baaraam bi mu ne docteur bi Moussa gay dagg ma parce que dañ maa desal ginnaaw buñ ko deggee nu muy def nëb nëb nëb day nëb kon li lay boole ci yëf yi mooy topp ndigal ak prix ba mu la mën a jox mmh. mooy toppal ndigal parce que bi ngay topp ndigal da ngay jàpp ne sa maqaama ak sa daraja day wàññeeku mmh. ndeke day yokk mmh. parce que bi nga ñàkkee da ngay doo topp ndigal da ngay jaar ca yoon wee tàmbali ngaa wéet dëgg la te yoon wi nga xam ne anam taalim fa lañ jaar foofa loo defee ne defe ne wéet nga. Mhm. foofa yoon mooy yoon wu baax bi. donc man su fekkoon dama daf maa jege ma koy déy. Mhm. dama naan ko rek yëngutu yeeg yii yëpp dañ koy teg rek topp fi ndigal li jaar. Mhm. jàmm na ñooy noppalu noppal say bokk. noppal penc mi ñëpp noppal. mais su fekkee oustaz borom këram moo ko samp bëccëg ñëpp di gis télé yi tàkk mu jël mbooloo toftal ko ci dundam ñu ànd ak moom ne ko yaay suñ jëwrin mu ànd ak ñoom di doxal loolu euh, loolu itam baa bu jàpp ne moom itam daa am responsabilité ndénkaan luñ ko dénk mu war koo sàmm euh, ndénkaan liñ koy dénk daa ne ci biir ndénkaan nii nit mhm. waaw am na hmm? mhm. ginnaaw dafa am luñ dénkaan ñu dénk la loola mhm. na noonu boo ko doxee rek dangay ber sa ndénkaan loolu te ndénkaan loolu du ndénkaan lu beru dëgg la ndax sëriñ Saaliwu radiyallaahu anhu du samp lu sampiwu du samp luy daanu la du dëkk kon nag lim doon samp lépp it tegu ko ne nañ wut weneen yoon wu bukk teg yoon wi fi suñ bi indi woon nu dox ca mukk est-ce que beddi ko itam euh, du ko yokk doole wala mu ñàkk indi ak ñàkk gën a tegu ci yoon maanaam tey bu buubee ay bagaasam buubee ko ngaa tuuba Touba dem dem Madinatu Salaam màggale fa dem wéetaat ak mbooloom nekkaat ci yëfam ndax loolu itam mënta indi euh, geneen geneen tàqalikoo goo xam ne récupéré woon te defar moo ko gën mooy li ma ko doon déy léegi mhm. xam nga récupéré bi comme dafa amoon daaw daaw jéeg di dox ba ren. Mm-hmm. dafay am foofu boo fa tollee dangay jël maw xiif mm-hmm. da jël taxawaay. Mm-hmm. ne léegi nag lii lañ dogal. moom miy dox nag moom mooy nan kon man. comme dañ ne ma bu ma def nii. defatuma ko. nee nañ ma wax lii. waxatuma ko. nee bul joxoñ fii joxatuma ko. ndax kay seddale bu seddee kiy séddale. moom ma sédd. waaye du ma feccee ku dem ne comme nun la damay dem. Mhm. déedéet bu doon ab parti. Mhm. bu la neexee nga génn def. PDSR. dëgg la tarixa moom du parti. déedéet liberté boobu amu ci. très bien <laughs> moo tax léegi daal. Euh, nangu te nangu rek. Mhm. jàmm ni ñooy ak lu métti métti ak lu métti métti. jërëjëf ci tàmbali bi sax mooy métti waaye. boo ko defee. doo toog ñaari fan yëg ne ah. Mhm. lii kat ëppoon naa ñàkk def macha allah jërëjëf sant la gërëm la loolooy suñuy xalaat ci actualité yi nga xam ne moom lañ indi woon mhm. tënke ko noonu rek waaye actualité màggal moom lu yaatu la mhm. waaye dinañ amaat yeneen i plateau ci biir màggal gi incha allah ak Ali Imran TV euh, xam naa danañ ci gën a yaatal yi ñu ci war a waxtaane yëpp ma bàyyi la nga joxe sa kàddu yu waaw joxe sama kàddu yu jaajëfal la waaw góoral la. jërëjëf ba noppi lalal la. <laughs> xam naa jomb léegi tey ñuy bind ci suufu Mbàkke si la habillé par. nangam nangam. <laughs> wala par boppam. <laughs> wala par boppam. waaw ah, moo habillé boppam. dégg nga moo habillé boppam. kon bu tey bi mbakki sal ah, mba pare ni ko waxati. Ah, ma Mbàkke si la. habillé par boppam waaw par boppam. waaw ñu ngi la si jaajëfal macha allah di la lalal euh, di wax mbokk yi ne leen incha allah à partir de mardi bi di ñëw. Mhm. jombul ñu ñu am en direct. incha allah incha allah. bu nu amee en direct ca Touba ba noppi. bu mardi jotatee ñu toog fii ñu am ñu en direct. maa ngi yaakaar nit su boobaa serveur bi ngeen di gis ci kii bi. Mm-hmm. nit ñi daañ ci mën di jaar di mm-hmm. ñu mën ciy jaar ak ñoom. du dëgg mën naa am ay émission spéciale yoo xam ne. Mm-hmm. yooyu la ñuy dox. mbaa ci la ñëw fii. def fi benn boo xam ne bi noonu la mhm. sëñ Cheikh ñëw fi keneen ñëw fi keneen ñëw fi extra mhm. ak ñi nga xam ne ñu ngi ci liggéey bi te tàmbalee gu ñoo feeñ ci mbir bi mhm. yàlla na yàlla boole ñu sàmm ndax jumtukaay yu ne ne woon gaa yi ngeen ne ci ñu ngi ci ne macha allah ba fi nekk nii eh, xel maa ngi dal si donte am na yoo xam ne mën na cee topp jaajëfal lu baax a baax nag màggal gaa ngi ñëw yàlla ñu fekk buy dem yàlla ñu fi bàyyi yàlla nañ dem bi salaamin nekk fa bi salaamin amiin ñibbi si bi salaamin yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf oustaz jërëjëf mbokk yi ñu doon topp ci Ali Imran TV sant leen gërëm leen jox leen daje euh, beneen ay bis geneen ay bis gi di ñëw incha allah salaamaaleykum. yéen ñi nga xam ne nag bëgg ngeen di jot vidéo yi di ba jot audio yi. am na foo xam ne boo fa cliquer incha allah danga mën a abone nga xam ne lu ñëw ci rek nga jot ci